perfusion yi. non non yaas. perfusion <laughs> bul sëgg déet déet yaas bul sëgg daay daay que sama sëgg du gën a rafet sax parce ma gunge la. <laughs> Oh. yaas waa yaas yaas yaas sànq doon nga laajte ci wàllu inondation yi. Mhm. yaas ñett am. foofu. ñett moom moo am siré. ñett benn. Mhm. bañ a ami boroomi xam-xam. parce que mënoo di dund as lëf lu ëpp fanweeri at ak nangam. Mhm. te bu ñëwee nekk lu routine quoi maanaam comme ñun ni ñu yeewoo suba teel gi ñëw gaare yéeg léeg li bu doon lu baax la ñu ne waa mais lu bon ci état soit siré dañoo amul ay boroomi xam-xam expert. en urbanisme lañ koy tuddee xaw ma en lan booy ñaar wala mu am yëfu maa tey wala mais reddition des comptes siré yéen lañ dénk kaay ngeen wax nit ñi daaw bi ñu defee lii lii ak lii ak lii amu fi wala dañoo amul ay boromi xam-xam wala daal yëfu tey daal moom moo fi am mais mënoo at bu ne li nga dundoon ci mitit askan wi di dundaat loolu te yow bu at bii di ñëw président day dem taxaw foofu wax ministre bi ñëw wax ngeen delluwaat bu déwénee deux mille vingt deux président day ñëw taxawaat foofu nuyu yaay waxaat ñu génnaat quinze milliards mu dellu ministre bi ñëwaat taxaw foofu wax quinze milliards nuyu ñu de. Birahim loolu kay waaw xam noonu dañoo ku tëlee tëlee maanaam mënuñu. mooy mën a nekk wa illah. bon. mais mën mën nañ sax mais solution bi ñu bëgg def fii. loolu nañu amul ay moyens comprendre donc yow bu fekkee amuloo moyens yooyu il faut nga changer angle wut wut beneen solution de recherche. est-ce que problème mu moyen la. non si problème moyen la parce que assainissement. wu ça va ça coûte état problème mu ñoom bu ñu doon estimé ba génne seen budget teg c'est parce que xaalis baa ngi. monsieur le maire le maire. Hmm? état lu mu bëgg. yàqandeeru yàlla la ci kaw suuf. dañu jëlee décision jël autoroute à péage wut ay partenaire tubaab. français ak chinois yi jël autoroute bi jaarale ko ci kaw dex mais péage bi jaar Patte d'Oie dex la woon dex laa wax dex dex dex la ñu jël ab tali jaarale ko ci ba ñu jëlee dogal jëlub ay ciment ak fer jaarale ko ci kaw géej ñaata pont la fi Macky Sall inauguré question de volonté la maanaam lii tey ñu def ko dañ koy def. Ah, waaye comme nag ñoom mais mais attends affaire moyens yi ma lay expliqué xam nga fii nii. zone bi waaw euh, napp bi dafa jege. donc yow benn solution ñoom solution bi ñu def mooy. bu ñu bëgg a def. mooy drainer ndox yi mu dem dem géej. mais boo xoolee diggante fii ak géej ñoom amuñu moyens yu ñu ko mën a defee. mais c'est la première fois première faute Siré ah, mooy nga jël ay nit par exemple Medina Gounass mhm. délocaliser leen yóbbu leen fenn fu mel ni Kër Massar wala fenn mhm. te yow leer na la ne techniquement mhm. fii napp bii nii nga dem dëj leen fa jaxaay ak jaxaay mais fu loolu loolu mooy yëfu voilà cuune ak ñàkk xam-xam gi may wax. très bien léegi nag ñoom dañuy euh, déshabiller Paul euh, pour aller habiller Pierre c'est-à-dire que tant que ñu ngi ci logique lutter contre les inondations. waaw ah, danañu régler goxu ñenn ñi. mais loolu c'est pour créer aussi d'autres problèmes. mais loolu est-ce que problème mu mooy la. c'est pas un problème. milliards de francs CFA. ci programme décennal de lutte contre les inondations ba ñu taxawal commission d' enfin enquête wala commission parlementaire euh, milliards nii milliards c' peut être dernière manne financière mais c' milliards de francs CFA presque 1000 milliards lañu def ci wàllu maintenant tant tant que ñu ko def waaw dans la logique de lutter contre les inondations daañu ci def lu ci gën a bari te du régler wu affaire yi mais par contre suñu jëlee mooning boobu changer approche def euh, stratégie de récupération des eaux ou des bassins de rétention mën nañu def peut-être avec la saison hivernale il fallait curer les bassins defaraat mais loolu yëpp defuñu ko donc maintenant voilà termine yéen a kaay ñëw ci Kër Massar Mbour ak Touba fa la mbir ma mitee métti pire nag pire pire liñ naan ay léeboo la ñu pire mais métti pire l'axe du mal la ngi ni Kër Massar Mbour ak Touba ay quartiers yoo xam ni Siré est-ce que xam nga am na ay quartiers yoo xam ne douze mois sur douze ndox ma dafay ne